askan wi yeewoo ci Madiyana 3 nelawatuñ guddi ndax ay jafe-jafe yu metti yoo xam ne ñu ngi koy jànkoonteel loolee lépp jëm ci wàllum ndox bi la quartier ñu ne nag ay fan a ngi ni siitum ndox toq ci seen robinet yooyee guddi la ñu jóg nelawatuñ guddi nelawatuñ bëccëg lekk ñu ba suur naa nañu ba mànd danoo roota roota root ba nu rootunu nit ñoo ngi ñaan ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa Mbàkke ñu dimbalu sëñ bi nag ñoo lay ñaan xéewal nga yokkal ñu nag am ndox ñoo ngi nii nag fuuti nan tolu ñoo sol mbubb telu ñoo lekk telu ñoo naan fajar la ñuy jóg xaaju guddi la ñuy tëj boo nag ñu ni ramas nag du ñu dóor di dóor suñuy waa kër ñu rootal ñoo ngi nii set gi ni woote ak wopp ji ni woote ba tëj ñu ñoo ngi nii na ba nu amatum ndox mënuñoo set suñuy doom mënta set mënuñoo lekk mënuñoo naan ndax bala ngaa tëju nag da am foo jaar wala nga am loo lekk wala nga am loo dund saa bu ñu génnee di rooti policiers yi di ñu dóor ñoog suñuy gone gone yi nii rootal ñu di ñu dóor wax dëgg yàlla sonn nan torop torop torop quartier bëgg Bamba ak Madiana sonn nañu nan nu dimbali yàlla sunu yaay yi ñëw nag dinu jàmbat chaque jour am ndox Madiana ba nu fi dëkkee rek 91 dañ fi ñëw ba léegi ñi may wax li ñu bëri xam nañ ko ba léegi mun noo fexe ba fajal nu sunu marom ndox mii nii loolu nag danoo bëggoon ñu dimbalenu ñu nuy dégg ñi xam ne seen kàddu sori na ñu yokk sunu kàddu gi nii ci ba lu fee nekkaat weer wi déwén ñu ne ci leneen bañ a ne ci waxum ndox. ñu ngi dégg ci ci ay rumeur ñu ne ci teew boobu moo tax xan na peut-être suñu teew maa ngi ñu bëggoon ñi nga xam ne nii tane ci ñu jox na ci loolu information itam ñu bëgg nañ ko ci. bu dafa jaar ñu dem ci teew bu bees bi pour am fa ñu xam ne dañu war a dem foofu pour am ndox bu fekkee ne teew bi fi njëkkoon a def moom mënatul am ndox. ñu xam ne teew boobu munut am ndox ñu dind ko de wuti ji mën a ndox parce que comme ay ay ay nit lañ te ñi nga xam ne nii mënoon nu jàppale itam tabax jumaa dëgg la tabax jàkk dëgg la defaray kii de mais may nit ñi ndox mu naan tam dëgg la ñi ngi wax corona ñun bientôt sunu doom yi kenn du ci sangu kenn mënu cee am ndox moo raxasoo te ñu ngi ñuy laaj chaque jour dee leen raxas xale yi dee leen def nii xale yi bu timis jotee ku fi génn ñu jàppale yóbbu te maire yi fii ne xam ne ba noo jógee fii timis jot ndax mun noo dugg ci biir di rang di dugg te timis jot te balaa timis ñu jëlee leen fi ñu bëggoon ñi yor dëkk bi ay taalibe leen nag duñu mars ci nekk ca taliba di déconné wala ñu ne ci taalibé yi takki morsa di déconné parce que ay taalibé lañ waaye nag mën nanoo marche suñu làmmiñ liñ bëgg ñu defal na ko loolee nag tax na ñu ne bu ñuy xeex jàngoro jii di coronavirus foofee gën na faa métti ñu ne nag bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ñu ne daal ak cet balaa muy mat dëgg-dëgg wàllum ndox daal di jàppandi te ñoom loolee la ñu ñàkk. koo xamante ne si ne daal mi ngi dégg suñu kàddu ñun waa Madiana 3. képp koo xam ne ñu ngi dégg suñu kàddu ñu ngi lay ñaan lillaahi wa rasuul yi mu mu dimbale ñu ndox parce que tamit root bi metti na kii metti na surtout ci période bi ñu toll couvre feu lañ wax parce que tamit fi ñu doon ne fii 6 heures du fi nit ñi commencé di root ba ba parce que lu ko mooy lu ko lu ko weesu rek mënatoo génn ca dafa am fii ñoo xamante ne dañuy xëy di liggéey ak ñeneen ak ñeneen ca képp ku wàcc war nga a sangu ca ku amul ndox nag yaakaar naa doo mën a sangu doo mën a doo mën a def dara ca rassemblement bi ñuy bañ te yaakaar naa am na fii kon nag li tax mu fi bañ a añ mu fi bañ am mooy que ne ñu dimbale ñu ñu am am ndox bu nu amee ndox rek yàlla suñ boro mën nañu dimbale ci lépp lépp lépp moom kii jàmm. askan wi sonn jaaxle lool boole kook tiit ci jàngoroy coronavirus geeg ñàkkum ndox mi ñàkkum ndox mi le yile lañu war a nemmeeku ci yile kanam ay soxna ak i góor yu dajaloo lépp seeni bët ñu fekk ko ci naka lañuy def ba am ndox moo xam ne moom lañuy jëfandikoo. ba tax jamono ji ñu woote wàllu. bu ma bu ma bu ma fàttali ko yaakaar naa ne yàgg na lool yàgg na lool man dama ne dalee gis ñu roon moom yàgg na lool waaye roon mii moom dama gis moom dafa gën a metti moom ndax roon mii ni ma ko gisee moom metti na metti waaye boo xam ne man dafa mel ni mosuma ko fee gis ndax dafa yàgg ndax yaakaar naa ne weer na topp loo xamante ni man gis naa su rëb na beneen suñu kër xelliwut weer lu topp boo xamante ni rëb na ba xelliwut

ñu ngi sàkku baabaa ñu dimbali ci ndox daal mu ñëw wax. léema am fi fanweeri at ak sama ñeent fukki at léema rafet waaye lii moom tey laa ko fi mas a gis te dafa métti dafa tar ñoom ñi ngi tere jaxasoo yi te nun suba ngoon ak bëccëg noo ngi ci bassin yi nii la ñuy def suba ngoon ak bëccëg man tey fii samay xale fi lañ ma yote añ mbedd bi boo ko toppee tout droit monument bi ngay jàkkaarloo mooy suñu koñ direct daaru Xuddoos quartier bëgg Bàmba lañ dëkk sonn nan tay nan ndox mi bu nañ ñu ci dimbali ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa te yàlla tax bëgg na noo set bëgg na noo sangu bëgg na suñuy gone di sangu nuy fóot di toog ci suñ kër yee rek la tey suñ bopp di dem ci sart yi nga xamante ne ni nag moom la fi yàlla indi te yàlla na ko fi yàlla jële waaye ta nekk ndax li tax mënta nekk amunum ndox tey amunum ndox ëllëg boo yoree téeméeri adu sabel yor téeméeri madaar yor téeméeri oma te moo ndox moo ko def jëriñu la dara nañ nu dimbali ngir yàlla ndox ñëw ba pare ñu doog ca teg adu lu man di doon da jiital la war a jiital la ca war a doog doog ca topp amuñu ndox amuñu luñ sange sun xale yi amuñu foote fóote amuñu luñ togge man fii laa yendu ca fajar laa fi ñëwoon ba léegi maa ngi nii ñibbeegu ma sama kër añu ma boo ma gisee sama bët xóot yi xam ne añu ma dañuy ñaan nag ci kàttanu yàlla ku nu ci mën a dimbali nga dimbali na ca te yàlla tax mm, li ci ëpp bokk na ci jafe-jafe ndox li ngeen wooyee mel na ni yàgg na trop ndax gënoon naa métti ay jamono bañ ngay nekk waaye fi ñu gisoon fi mu tànnee mooy bi Abdoulaye dikkee ba mu ñëwee lañ gisoon mu góorgóorlu woon ci ba ndox doon amaat ñu ñu mu tanewaat sunu yaay yeeg ñëpp amaatul jàmm ñu doxaat ay jamono tuuti mu amaat jafe ndox léegi nag dëkk bi yokku na ndax jamono boobu ak léegi wuute na booba jamono fi dëkk bi toll ak fi mu toll léegi am na changement dëkk bi yokku na dëkk waay yokku mbooloo mi gën a bari loolu tamit liñ ciy wax mooy li ñuy def nii du ab dox ñaxtu duñ dox ñaxtu ndax ci dëkk bi lañ nekk ci ndigal la ñuy wéyee wéyee gi ndigal mooy sëñ bi bëggul dox ñaxtu kon loolu ñu bàyyi xel baax woote wuñ dox ñaxtu waaye li ñuy woote mooy dañuy woote ñu ñu jàppale ngir jëmi suñu borom ñi nga xam si ñoo yor ndox mi ak ñi ne ci dëkk bi ci am baat ñu mën cee jàpp eggal leen suñu yi ci kilifa ya ñu mën ko àggal ba ñu dégg ko ba jàpp ndax ñu ngi doon jokk ay kilifa sànq ñu wax ne xëy na forage dafa am paan loolu lépp it nag ay moyen dana ko laaj yoo xam si ni kilifa yi dañ ci mën a jàpp mën ñu koo defaral bu fekkee wàllu teewaay yi comme ni ko Thierno waxoon yëpp ñu mën ci am taxawaay bu rafet ndax lii dafa bokk ci jaam yàlla muy am ndox tey manque gi tamit gënut ndax boo manqué ndox doo am laab jullee